l' autre chose puisque da may wax la presse man am naa ci gis-gis mais ça c'est le leader du mouvement citoyen demain c'est maintenant qui parle il n'y a pas de politique des médias et de communication dans notre pays mhm. amul kenn ku ko am proposé woon na benn ébauche ma ne amul ébauche nga wax amul kenn ku ko am ah, en 2019 te loolu te ah. loolu war nañu fexe ba mu am sur le modèle économique war nañu fexe ba mu am dans le domaine de la formation war nañu fexe ba mu am ci la répartition des rôles et des missions entre les médias dits de service public rawatina la chaîne publique la RTS et les médias privés et plus précisément les télévisions privées man je pense Et c'est vision et c'est une proposition qu'on fera nous. Demain, c'est RTS dañ ko war a transformer en une grande chaîne internationale. Parce que l'enjeu may mun a mooy lu ñuy woowee soft power. Lu tax Maroc am Med 1. ak 2 am TRT. Maroc ak deuxième m plus Med 1. yeneen réew yi. nga gis aujourd'hui leur grandes chaînes qui sont représentées même ici ñun la RTS nekk fii di xëccoo le marché de la publicité avec les chaînes privées bay jël presque plus de 80 pour cent de sa marché nañu gën a spécialiser la RTS sur l'international d'abord soft power influence parce que aussi ma conviction c'est que diplomatie ak une politique étrangère digne de son nom dafa war a ànd ak une communication puissante à travers une grande chaîne internationale des médias influents mais ça ne veut pas dire que les chaînes privées qui en ont les moyens et peut-être qui pourront aller même vers des regroupements mënuñu am un positionnement sous-régional continental voire international bu buñ ko defee la RTS ñu dooleel ko jox ko ay subventions yu mat sans sans oublier que dina continuer di jouer sa mission de service public au plan national au même titre d'ailleurs que les chaînes privées qui ont également une mission de service public qui n'est pas forcément rémunérée de telle sorte que la RTS se positionnant sur le plan sous-régional mais pourquoi la RTS ne serait pas capable de gagner de la publicité dans la sous-région sur le plan continental surtout qu'on parle d'un Sénégal qui va devenir un pays pétrolier et gazier cette force ce poids éco poids économique donc diplomatique bi Sénégal nar a am dafa war a ànd ak RTS ñu transformer ko et ce n'est pas la matière grise ki manque les ressources humaines regarde tous ces aînés qui sont mis au frigo à la RTS qui sont à la retraite mais qui continuent de servir ailleurs leur expérience la transmission encadrant les jeunes brillants journalistes de la RTS hommes comme femmes que je vois là-bas jusqu'aux techniciens nañu valoriser loolu j'apprends que Ousmane Cissé defe naa c'est le même qui a travaillé avec Maktar Silla Et qui a travaillé à la 2STV. A été nommé aujourd'hui à la tête de la société gabonaise de l'eau et de l'énergie. Un Boubacar Kamara, directeur général adjoint de la douane du Bénin. J'en oublie certainement. Je trouve que le régime actuel ne valorise pas assez les ressources humaines au Sénégal. Tant ici, fii ci Sénégal, qu'à l'étranger, ne valorise pas assez le secteur privé, l'entreprise. et je le dis on n'est pas encore en temps de campagne gis na la plupart des offres loolu gisaguma ko suffisamment li may dégg fii c'est plus des discours politiciens la plupart du temps que sur des questions de développement réellement réellement voilà une esquisse de offre programmatique bi nga xamante ni dinañ ko jébbal sénégalais yi le moment venu te defe na l'arrivée de demain c'est maintenant amène un souffle nouveau nañu yaatal géew bi nañu permettre sénégalais yi am une diversité d'offres nañu intégrer que réew nañu moytu kuy wax ni politique métier la ça veut dire que xëy na métier bi mu am fonk ko wala amul métier tey mu cuuj fi suba mu cuuj fële